alors maître je termine par euh, euh report bi bu ñu ko acté dafa am des des conséquences financières lourdes d'abord les candidats. c'est une catastrophe pour qui avait engagé beaucoup de de de de de, de, de dépenses. Euh, et toutes les parties prenantes. Euh, les sérigraphies, les médias, euh, d'autres structures qui officient dans le domaine de, de, de l'événementiel. Est-ce qu'il y a un cadre juridique pour nous prévoir pour prendre en charge euh, ces questions-là Même affaire wu gis où vous dañ vous respecter. Par exemple, pour donner benn exemple, ñàkk respecter état de droit te loolu force de force de sécurité yi lay wax président dafa def discours le samedi ne day day day abroger décret bi convoqué code électoral le dimanche candidats yi ñun dañu def suñu campagne comme ni campagne woon na commencé on les a réprimés sur la base d'un décret qui n'était même pas publié les de de défense sécurité aussi war nañu am lucidité te tamit xam ne mbir mi du affaire allégeance Macky Sall moomu leen Macky Sall ba 3 avril mooy seen chef loyauté lañ ko ameel maanaam lu mu leen sant war nañ ko def mu méngoo yoon ameel luñ ko allégeance allégeance république donc nga koy amel mais maître au nom de la sécurité publique les FDS amuñu le choix non attention lan mooy sécurité publique quand aujourd'hui une, une campagne électorale est officiellement a officiellement débuté le décret xam nga dafa am une règle un décret n'est exécutoire que lorsque c'est publié dans le journal officiel tant que c'est pas publié dans le journal officiel c'est pas exécutoire ça n'existe pas donc tant que publié wuñ ko waruñu am attitude comme quoi que décret bi convoqué corps électoral abrogé nañ mais est-ce que loolu ñoom lu ñu war a lijjanti la. mais dañ ko war a lijjanti les FDS est-ce que lu ñu war la est-ce que bu ñu ko bu ñu doon lijjanti loolu est-ce que ñoom tamit du ñu tàbbil réew mi ci guuta c'est-à-dire le ministre de l'intérieur ou le euh, le ministre de le ministre la justice ou le général ou le ministre des forces armées ñu joxe ordre. les FDS ñu ne duñu ko de duñ ko exécuter non dama je parle de toute la chaîne de commandement wan waxuma ne buñ dafa duñ ko de commandement est concernée par li may wax chaîne de commandement mooy gérer loolu ñoom ñoo war joxe exécuter parce que si un décret a dit convoquer le corps électoral en conséquence une campagne commence un autre décret arrive abroge le décret convoquant le corps électoral qui n'est pas encore publié il n'est pas exécutoire ku nekk chaîne de commandement war nga xam loolu les conditions d'applicabilité des lois et des textes les conditions dans lesquelles une loi ou un texte est exécutoire c'est un minimum pour pouvoir faire ton métier mais c'est des abus et puis en plus franchement il faut qu'on arrête le le le démarche euh, euh, euh, autocratique xëy couper internet ku yëngatuñu dóor ku nañu dellu suñu Sénégal. et tout ce que coupure internet Sénégal démocrate nous, nous, nous coûte. non mais faut faut arrêter. tout ce que la coupure de internet nous coûte. il faut arrêter ça c'est des c'est des attitudes autocratiques ñun xamuñu loolu nañu dellu si li ñu nekkoon Sénégal neex Sénégal on avait pu civiliser ku am loo xalaat wax ko ku bëgg manifester manifester ñu teg ko ci yoon ñu nekk si jàmm. mais attitude yu bees yu autorité yi autocratique jaay doole kenn du bouger kenn la preuve keroog bi ñu voté loi bi ku jege assemblée nationale ñu dóor c'était déjà le cas en si si référendum bi bi ñu ne dañu dem dem assemblée nationale. non 2019 la avec le vote de la loi sur le parrainage assemblée nationale. Mm-hmm. mais Macky Sall Abdoulaye Wade li mu nangoon ñu dem assemblée nationale moo tax mu nekk fi mu nekk. parce que Ablaye waat quoi qu'on dise daf ñu doon bàyyi ñu manifester dem place de l'obélisque tous les jours manifester foofu. même à la ñu dem assemblée nationale ñu organiser nit ñi ñi opposé nañ taxaw fii ñi na taxaw fale mais léegi impossible c'est quand même incroyable yoon boobu moo tax ba nga nekk président mais culture culture boobu war nga ko mun a conserver waaye ñëw jaar ci yoon boobu ba toog ci place bi. ne loolu kenn doot ki fi def ñu ko teg